asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 3 juillet 2020 ñëw ak yéen ci yëglekaay yi sunu làmb la ni xëy tey dooreete ko mu mel ni ki nag yëglekaay ba daal teg na xëy na moom andil ñu li nga xam ne nag moo di diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye numéro 2 mu mel ni ki nag léegi moom mbir ya nag leeral nañu ko démb nag fi mu nekk ni daal bay wéy na mbuus ndax combat ba nag taxaw na la ko waral mooy ñaari mbir ku ci nekk daal encaissé nga xaalis yëpp ci sa poos yóbbu sa kër muy Gris wala muy Balla mel ni ki nag loolu sunu xëy tey xamal nu ko waaye tamit xamal nañu la nga xam ne nii moo tax ba dem cérémonie ba nga xam ne moo doon remise avance bi la tax ñu dàq ko loolu lépp yëglikaay bi ñëw na ca loolu sunu laa xëy tey wax nu ko mu mel ne kii nag ki nga xam ne mooy troisième tigre de Fass bi moom daa mel ni day moom revanche bi mu jëm revanche de danse daal la ko yëglikaay bi tuddee wala boog revanche la bi nga xam ne àndan ak tous les danse maanaam daal loo ci bëgg a dégg-dégg moom bëri na ay ndëgg si rox yoo xam ne mu ko cay xaar moom mi nga xam ne moo di Gris Bordeaux daal yaram wa tàng na kër yi Bombardier ak Eumeu Sène nag moom bu ñu demee Leewtoo point net ba tey dañuy des ci mbir yooyu mel ni ki nag ñoom seenu combat la ko teree taxaw mooy Bombardier ba nga xam ne moo nekk ci réewum France mu mel ni ki nag Gaston Mbengue daal la mu ne daal wala boog la nga xam ne Bombardier wax na fa ne daal Gaston wax na ko ko mooy moom feet tegul tànkam ci réew mi daal du génn xaas di ko joxe man ta jox Eumeu Sène di ko bàyyi li am ba des daal dañuy teew ñoom ñaar rek mu génne joxe kon daal ku yebu itam xaar boobu combat ne ci réew mi moom ñu encaissé moom ak Eumeu Sène ga tey ak Gaston Mbengue moo fay jaar fa nga xam ne mooy ci Leewtoo point net tamit mu mel ni ki nag waa Vox Arena ak combat bañ annoncé woon na ne moo di Garga 2 Mama Lamine mu ngay leeral fa nga xam na moom jotul avance tey suba waxi ko waxoon itam na ca ko koy jox joxuñu ko ca kon gisagul koo xam ne bëgg nga combat am bu la neexee nga ñëw waaye na ko wax ci xam ne nii moom moo di ca Leewtoo point net beneen combat boo xam ne nii moom war naa nekk intérêt promoteur yëpp mooy fi mu nekk nii Tapha ak Boy Niang sunu làmb xëy tey wax nu lu mel ni ki noonu la ko waral nag mooy combat soog la boo xam ne day bu doy doy waar la te ku ko tëgg da nga am combat bu doy waar moo tax yëglikaay bi jàpp na ne fi mu nekk nii daal war naa intéressé promoteur yëpp keneen koo xam ne nii moom jàppal bu fekkente ne nii mu ngi ci làmb ji promoteur yi bëgg ko wutal doon nangoo lekk avance sam muy rëg-rëg sunu làmb xëy tey wax nu ko moo xam saa Cees la guy gi Yékini Senior ba ca Garga Mbossé daa mel ni gars yi daal ku ci ne buñ la waxee waxi rëg-rëg sunu làmb nu ko wax ne na ngay set feneen foo jaar boo ut noo cay génne yëglikaay baa xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni kii noonu ka nga xam ne nii moom la mu dugg dugg na ca ba ne sabax ba encaissé ab xaalisam mooy double moteur double moteur bu rëbës nag moom daal lekk na avance Quench moo tax nag mu nga xëy ci yëglikaay bi di sunu làmb daal di avertir ka nga xam ne moo di Quench wala boobu di ko di ko xamal ne day jàppal ne man day am naa ay bagage yoo xam ne yu la mën a daan la yow Quench bu bari loolu mooy waxi double moteur ci yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu làmb mu mel ni ki nag Quench moom écrit ba mu bokk daa mel ni ñoom fi mu nekk ni day ténor ya wala bari na fa boog ay mbër yu mag yoo xam ne lekk nañu avance ndax Quench encaissé na avance double moteur fëgga la encaissé avance ko nga xam ne moo di armée bu benn baraak Siteu ma nga xam ne tamit moom mooy tarkindaa ba am encaissé na la nga xam ne moo di avance su Papa Sow sunu làmb xëy ñëw wax nu ko buñ fa jógee dañuy dem fa nga xam ne nii moo di record dellu si nag ci diggante ka nga xam ne nii moo di tafaatin ak adversaire yi nga xam ne record jàpp na ne day ñàkk na ko moo xam kii di Gris doo la Bombardier Eumeu seen ba ci Balla Gaye mu mel ne ki ñeenti adversaire yoo xam ne daal tafaa ñàkk na ko kon daal daa mel ni fi mu nekk nii day est-ce que du Lac de Guiers numéro 2 Boy Niang rëg-rëg wala Sa Thiès ñoo fa des yëglikaay ba xëy tey ñëw wax nu lu mel ni kii noonu mel ni kii nag ba tey record itam ci gëstoob Abou Ndour mu ngi ñoo xam ne day Boy Niang daal mu nekk ni daal mbir ya compliqué na ci moom bu baax a baax ndax nag daa mel ni daal la ko ko yóbbee yëglikaay bi nan wàllum fixation ci ay kase maanaam daal ne lii lañ may fay daa mel ni moo jafeel mbir ka nga xam ne nag moom mooy fay di Gaston Mbengue moom la mu wax leer na ne na daal la mu fi daan def ay at di jël ay cent wala ay cent cinquante millions yu ko romb di ko jox ay mbër di xaru ne na dootu ko def tey suba waxi noppi li jaadu te mën a ne moom lay def ngir bu mënee tëdd wala boog bu tëddee mën a nelaw ba yandoor ndax jàpp na baree baree bari di ay centaine fay na ko ci ay njàngu doomam te taxul ay doomam kenn ci weer wu dee nga maye ko nga mën a fayeku salaire boo xam ne dana jar ñeenti millions ne na kon xalaatul di defatul mel ni kii noonu moom daal ku raisonnable mu tëgg la ku ko mënut mu bàyyi la fa wëri leneen keneen koo xam ne nii moom ka génnoon di ko laaj muy ama neex góor a soog mi fi génnoon fan yi di wax ne bokk na ci adversaire am ama neex ne na ko bokkoo ci tey suba waxi noppi ndax man du ma sab adversaire seeti neex moo wax lool ci record ñu ne ko ko koy bëre mu ne Yékini Senior Moussa Ndoye Modou Anta ne na ñii daal ñoom laa fa yéene jàmmaar lool waaye ki nga xam ne nii moo di góor a soog moom ama neex ne na ko wëril leneen mu mel ne ki nag fi mu nekk nii day làmb ja nag moom jax moom mu ngi koy bëgg a def de olof a ko wax ndax nag li am ba des daal mooy cin moom su naree neex su baxee faw mu xeeñ ndax nag Gaston Mbengue ñëw ba diis na te Baba Jawit ñëw na te am na ñeneen ñoo xam ne ñu nga ca suuf di ñëw yi encaissé avance lamb ji jax arbitre yu soufflé bëre bi takkarnaase lool dong nga mën a ne réew mi gën a neex te corona bi dem. mbokk waa Leewtoo TV ñu lay leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndaloon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen nag si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuy di la ziar si àjjuma ci maa ngi lay fay Ndeye Coumba am naa tàmm laa tàmm la laagul <laughs> maa ngi lay fay di nuy internet mu ngi may jox micro te man yor naa micro mbaa yaa ngi si jàmm maa ngi sant Babacar daal nga ndekkeegul. nekki naa moom fonde ah. en attendant leneen li. ok kon baax na yàlla baax na. ni ah. ñëw nag si jàngatu arène bi Babacar nu commencé nag ak sunu laam sunu laam nag nee ñi combat bi nga xam ne nag ñu doon laam laamee naan taxaw ak taxaw léegi nag leer na ndax ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux ak Balla jot nañ seen avance euh, dem si euh, loxo yi ki nga xam ne moom mooy euh, Gaston Mbengue nee ñi nag Balla Gaye nag moom teewul woon Aziz Ndiaye moo ko teewal ki nga xam ne nag moom mooy Gris Bordeaux moom moom moo ñëwal boppam ànd ak benn xaritam récupéré xaalisam Babacar. waaw mu mel ni kon daal loolu moom kon mbir léegi leer na nañ parce que nag yaakaar naa ne bu ñoon doon wax naan dina am ak du am est ce que mën naa ne ko mënta dégg mm. yàlla def na nag léegi daa mel ni kon nekk na ndax defe naa ne démb moom euh, ñun ci suñu ay gëstu yu ñuy def jokkoo nañu ak suñu papa Gaston ñu koy nuyu en passage di ko ñaanal jàmm wax dëgg yàlla mu wax ñu dafa nekk ci réunion ak di toppatoo mbir yooyu mel ni kon ci loolu la nekkoon yaa ngi dégg ba tax na kon defe naa démb mbir ma leer na giri encaissé na yóbbu këram Balla Gaye encaissé nañ ko indil ko muy Aziz Ndiaye ma nga xam ne moom mooy kilifaam muy combat boo xam ne loo ci mën di dégg daal xam naa ne bi yoon dana gën a man ci sama gis-gisu bopp parce que li tax mooy euh, Gris Bordeaux boobu ba tey dafa am lu muy wut te mu tëkku yaa ngi dégg mooy turu roi des arènes amagu ko ci làmb te xëy na mu ngi def ci xelam ne balaa bàyyi làmb dina ko am te combat bi mu jëkk a bëri ak Balla dafa jàppoon ne leerul. yaa ngi dégg moom loolu la jàpp mais Balla moom da koo gagné ci lu ñëpp gis parce que moo giri moo ëppale kera ay avertissement muy combat boo xam ne jàppal ne bi yoon parce que combat bu njëkk ba kenn du la ne bari amu fa xeex ñu bëri nañu. lépp lu ñu war a def kër def nañ ko xëy na nag jiwal bi ba mu xawoon na të mais bi yoon xalaat naa ne moom jël bu gaaw dina ci am te giri jàpp na ne daa war a daan Balla Gaye numéro 2 te Balla Gaye numéro 2 fi mu nekk nii moom li na ci xelam mooy roi de scène ba nga xam ne moom la téewoon mu téewaat ko te gëm na ne lii diggante ma giri moo koy leeral Mm-hmm. Babacar nu des tamit si Gaston Mbengue parce que tamit fee si Leewtoo point nag nit ñu xamal ne combat bi nga bi nga xam ne taxawal na ko muy diggante Eumeu Sène ak Bombardier combat ñaari mbër yi jotaguñ seen avance parce que ki nga xam ne mooy Bombardier mi ngi sa France te Gaston moom nee euh, il faut ki nga xam ne muy adversaire am teew muy Bombardier waaw wax na dëgg ah olof ne na yenu a wóor mag du dangam que comme benn adversaire bi mu ngi ba France mu ngi ba France Bombardier ñu koy nuyu Eumeu mu ngi Sénégal moom tamit ñu ngi koy ziar ah tey déggoo na ak ñoom ba génne xaalis des comme ni mu def ci Gris ak Balla mais nag li gën a wóor mooy Bombardier ci boppam ñëwal boppam teew Eumeu Sène teew mu mën a génne xaalis joxe wax na dëgg loolu moo gën a dalum xel te itam nag ay millions du 1000 francs te du 100 francs ba nga koy joxe noonu rek waaw yaa may dégg boo ko joxe moom da ngay teg ci condition yu leer ñu ngi ñaanal yàlla Bombardier ñëw Bombardier li ko téye mooy avion yi ñu ne dootuñu wàcc xaw ma ah, Europe xaw ma jógee Afrique ak corona bi ah. waaw comme tubaab bi moom dañoo jàpp ne ñoom ñoom ñooy sunu Malik yow mi din te yàlla nekkal fi ñëpp defe naa bu ñu tëjee ñu tëj rek ndax fi ne ku ne soxla nga sa morom ku ñu la ku weex a ci yam nag mais tey na de waaw bu ñu ubbi wul itam ku am maanaam yàllaa fi nekk rek hmm. ak lu mën a xew dinañ ubbi ndax ñoom maanaam mënuñu ñoo bàyyi ñun mënuñu leen a bàyyi loolu mooy àddina bi ñu xonk ñeeg ñu weex ñi yàllaa ñu fi wàcce ñu ñëpp ñu di ay nit mbir mi rawante bi xam nga fan la nekk ki dàq liggéey ki gën a nangoo liggéey ak ki gën a jaamu ak ki gën a nangoo jaamu yàlla mm. mais leneen amu fi waaw bu kenn complexe kenn pare nga. waaw ah, moom la <laughs> si beneen combat bi nga xam ne moom mooy taxawagul ga naam mais dañ dafa suscité ay intérêt yu bëri diggante ki nga xam ne mooy euh, Tapha ak Boy Niang combat na promoteur jànq la combat la boo xam ne ni mu ngi ci làmb ñi ñaa ngi ciy wax saa su ne ndey ko ba faal amateuru làmb itam tout le temps ñu ngi koy wax parce booy xool commentaire yi des fois ci wàllum làmb ci net beeg yooyu ak si vidéo yeeg yu mel da ngay gis gars di ko laaj lu bëree bari muy ko la boo xam ne defe naa tey képp kuy amateur wala ngay sax promoteur defe naa ne war na la intéressé Ndeye Coumba Fall mm. keneen ki nga xam ne nag euh, moom intéressé na leen ñëpp mais nag ñu bëri bëgguñu euh, bëreeg moom moom mooy Reug Reug Reug euh, na dox nañ ko moom ak Sa Thiès ak Gouye Gui Yékini Junior Garga mais ñoom ñëpp dañoo delloo avance Babacar ah loo ci mën a dégg daal mbër la ci làmb ji la bokk moom Reug Reug te xam naa itam faaw moom adversaire mm. xëy na nag duma ko jàppe ñi dañ koo ragal waaye xëy na lañ leen fay moo leen arrangé wul laa foog ci li ma mën a jàpp parce que ki takk ngembam bay bëre bay faye ko ay millions mënuma koo jàppe ragal mën naa ko jàppe nag koo xam ne mu ngi xool carrière am ak ki mu war a bëreel kan la parce que Reug Reug itam lu la waaye mën a wax du ñeexum ñebbe <laughs> loolu moom dama la koy wax di la ko waxaat du ñeexum ñebbe de mbër la bëgg na li muy def te macha allah mën na ko itam te da koy teg ci aw yoon. yaa ngi dégg te itam nag làmb moom adversaire bu ngeen demee ba benn moment ñu lay tuddi ko tuddi dox seen combat bu jege bu bu yegg si tamit jege na la. Mm-hmm. waaw euh, ki nga xam ne nag euh, mooy Quench moom na si yow mu waajal boppam ndax ki nga xam ne mooy double moteur mi ngi koy araf si nee ko dinaa la daan. waaw loolu day li ñuy wax la rek xam nga làmb moom taxaw bu taxawee Euh, bataille de communication day am maanaam xeex bi ci wàllum euh, waxante bi yooyu yëpp dañ ci la bokk maa la mën dinaa la daan lekk nga sama wax ñoom nag seen combat defe naa ne euh, lu nit ñi yàgg bëgg la lu promoteur yàgg bëgg la yàlla def na ci am production Baba Diaw ñu koy nuyu en passage taxawal na ko comme ne na dina daan Quench dañu yónni yàgg waaye daal xam naa loo ci mën a dégg moom double moteur am naw xew mm. am naw xew de waaye kële nga xam ne moom mooy Quench tamit am naw xew ma ciy profité nuyu Xaadim Jaxate bu double moteur ak ak Laay Njaay bu Quench mm-hmm. suñu jógee nag suñu laam Babacar nañ dem fi nga xam ne moom mooy record si xalima ab euh, Abou Nour Gaston moom nee na moom léegi dootul suicidé wu maanaam caché 150 200 millions yu doon fay du ko def tey du ko def ëllëg suicidé ko balaa ah, ngay lakkale maanaam daal moom dootul xaru <laughs> dootul xaru daa wóorut ndax yàlla sa bëggu <laughs> nit moom amul lenn lu la war a jaral xaru suñ papa Gaston ku ko xam tamit xam ko ci franc parler moom moom li mu bëgg a wax da kay wax waaw defe naa naa nag mbir mi moom daa toll foo xam ne nii daal lépp looy def lu ne na nga ko man mm. lu Youssou Ndour wayoon rek na ko am na ko attan loolu daf ci am solo mais def loo xam ne tamit leer na lii moom après boo ci génnee ay jafe-jafe la ciy fekk yooyu du ko jar moo tax ba nga xam ne li ngay def na ko man mais jéem koo teg fi nga xam ne nii boo ci génnee mu nekk lu nga xam ne nii lu lay amal njariñ lay doon la sëñ Modou ñaa doon wax nag bopp bu tuuti te seet moo ma gënal bu rëy tey mitti <laughs> wax loolu moo ci nekk euh, Babacar euh, ki nga xam ne mooy abonul ba tey si record nee nañu nag ki nga xam ne mooy tafaatin moom daal amul chance si mbir mi parce que bu mu ginnaaw bu mu perte ki nga xam ne mooy Balla Gaye Gris Bordeaux Eumeu Sène ak Bombardier moom neen daal kenn xamatul ban a nekk nii moom ay mbiram xaw na kii ñeenti adversaire ngi noonu mu perdre leen parce que comme noonu ko record waxee waaye nag dama naan ba tey adversaire yaa ngi fi ndax wax nañ fi léegi Boy Niang revanche ak la numéro yi ñi dañ cee war a wax combat bu war a mën a taxaw la kon Tafatine am na ay opportunité ba tey. ngir bëree ak revanche ak la numéro 2 waaw yooyu yëpp ay combat yoo xam ne nii yu mu war a mën a bëree te bi tamit naa taxaw na mu jaa xaw ma nag lu xew. man li ne ci tafaati na ma jaaxal man. mari da ngeen mari moom dafa mel defetu Ama Baldé bi moo ko gën a sonal. waaw non defet ba da caa jógee ndey Kumba Fall def def ay résultat foofu loolu loolu loolu yoonu làmb la Ama Baldé war na ko mën a daan. est-ce ko xam nga làmb buñ ne Ama Baldé ko daan rek non non Ama Baldé mënut Ama Baldé dafa war a mën a daan Tapha Tine te ci condition wu làmb la ko daane. Mm. mais Tapha dafa daan guy gi foofu daan fa zos. Mm. ñëw daanaat Yékini Senior avec la manière taxawaat ci ci maanaam ci rang bi. Mm. kon lu xew kay la ñuy laaj. mais defetu Ama Ba moom mu su ko caa tënk moom pour man teenoo yónni yàgg ba xam ba xam moo gën de <laughs> waaw ñu nag si ama neex ama neex nag moom mi ngi tontu ki nga xam ne mooy Gora Sock nee na daal na Gora ndax moom bëriwul ak moom bokkul sax si ay plan waaw Gora de moo gënoon di ko laaj nee na ama neex ci adversaire am la bokk ama neex nag tontu na ko moom xam nga ama moom xam nga ko nee na ko moom bëriwu ma ak yow tey su waxee noppi bul xaar moom moo doon la gis Moussa Ndoye mm-hmm. moom daal ñi la teg bëtam yaa ngi dégg wala Yékini senior muy lu loolu tamit ku ne am nga si droit yow laa bëgg a bëreel nga ne ko bëgguma bëreeg yow yàgg na ci làmb kon rek loolu moo ci ne euh, Abou Nouta mi ngi ne Boy Niang loolu moo tax mu perte ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye parce que tamit moom moo doon laaj Balla Gaye mais mbirum cachet daal moom moo ko yàqal lu bëre ndax comme pour combat bu mun taxaw Babacar waaw loolu day yàgg làmb xam nga moom dafa dañu bëgg digganteem ak Balla Gaye ngir mu taxaw mm. ah mu am staff am ay conseil staff am la ñu jàpp ne moom la ko war a fay loolu la ñu nag ñoom xëy na ka bëgg a tëgg combat wala ñu ko bëgg tëgg loolu arrangé leen ah loolu nag su amee du mujj fenn fu dul fii mu mujjee rek après mais du teree tamit yeneen sens a fi ne ko saisir yeneen adversaire a fi pour man mu jéem a tamit na lay def pour am adversaire bëri parce que Boy Niang xale la ci làmb la bokk te itam euh, defe naa ne am na lu bëree bëree bëri lu nga xam ne wane na ko ci biir làmb ji mm-hmm. ñu jeexalee nag ak Leewtoo point net xalima Aïcha Faye Niang moom nag mu ngi xamal ki nga xam ne mooy Mama Lamine démb ko téléphone Mama nag mi ngi leeral ne combat am taxawul tey taxawul ëllëg jotagul avance ndax promoteur boobu ba léegi mi ngi man na une semaine mu koy dawloo mu fàttali na nag ki nga xam ne mooy Vox Arena structure Vox Arena moo taxawul combat boobu. waaw man nañ sax bañ a tuddee dawloo waaye daal li am solo mooy waxante nañu. heure ba ñu waxante woon xam naa ne avance ba duggagul maama nag dina kon moom ñu ngi annoncé combat am te combat ba amagul moo garg de Vox Arena ñoom ñoo bëgg boobu combat waaye loo ci mën a dégg xam naa maama itam day bañ rek ñu naan combat am taxaw na te taxawut ñeneen bëgg ko tëgg mooy loolu quoi waaw mais am na solo daal. waaw am na solo Babacar si kàddu yoon leen di tàggoo di leen jox dig daje leen di incha allah mais balaa boobu muy nuyu sama yaay Mersa nuyu sama doom Mouhamed Diouf nuyu Astane DG Bramba Chéri Khadija Diallo depuis Italie ak Parcelles nuyu samay bourchou Mame Diarra Penda Rokoya ak ki nga xam ni moom mooy Grand Fallou nuyu euh, Abdou Gueye Baye Fallou Diamaguène Papa Cité depuis États-Unis yaa ngi si biir Asek Chéri Khoudia Seck depuis Italie tamit yaa ngi si di nuyu euh, Asi Diagne. sama mbokk naar boobu ak ki nga xam ne mooy tuuti yaay Sarr Babacar waaw noonu lay demee di leen nuyu ASEC tuuti yaay Sarr di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre à travers le monde lu fa xabu xarañ loo maa ngi koy béggee bu baax a baax di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ñëpp ak ki nga xam ne moom mooy Thierno Birahim Fall bu Balla Gaye numéro 2 am di Diawara ñoom ñëpp ñi ñëpp dañuy ak seex Bass am ah ak mustafa Moustapha Moustapha baax yaay waa lool la def waaw loolu de neex na ba dee Émile John ñi ñëpp xam nga seeni Ndiaye gars yi Omar Ndiaye ñoom ñëpp dañuy commentaire vidéo yi sa rawatina refi di leen ñaanal jàmm di wax ne que bu dul dara du baax kon daal ñu ngi nuyu internet yëpp ñaanal jàmm di ñaan yàlla senegal yàlla na fi yàlla def jàmm def ko ci àddina bi dàq corona bi waaye li ma waxoon sànq rek moo ci ne corona bu duggee Sénégal tubaab yi ñoo ko fi dugal kon defe naa waru ñoo tolloog ñoom fu ñu naan nañuy tëj ay aéroport rek du ñu dugg fi ak du ñoom buñ nu bàyyi woon ñun ca ne kenn du ko fi duggal ñoom ñoo ko fi njëkk a indi di wax ka ni nag encore une fois suñu autorités yi ñu ngi leen di wax ka ñoom ñun ñoo leen fal ñu ne ci suñu kanam nañu gën a am seen fulla ak seen fayda xam ne ñun dañoo yor lu ñëpp soxla nag Sénégal gii nu ne waaw kon daal te olof ne na bukki bu yabee waxambaane ca doxin wala di ñaanal senegal yal na fi yàlla def jàmm encore une fois di jaalaat booyloo ñi nga xam ne ñooy waa askanu làmb yëpp di ko jaal nag fans club Leewtoo comme ni ma ko waxee ñoom Cissé Karbala pare nga jaajëf ba